bokki julit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax a baax a baax te di leen ndokkeel ci lu yaatoo yaatu ci weer wu tedd wi nekk te di leen massawu bu baax ci mboolem coono yi nga xam ne mbooleem jullit yëpp ñu ngi koy jànkonte ngir màggal bis bu màgg bii nga xam ne moom la ko màgg ci diine di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bisam biñ koy fàttalikoo muy mawludu nabi asharif ñoo ci ndokkeel jullit yëpp te di leen ci siyaara di leen ci baalu ak bu baax di ñaan ñu fekke ko at yu bare bare bare bari te lépp loo xam ne nii moom lañ ci jublu yàlla gërëm ko te nangul ñu ko te defal ñu ci lu kawe sunu yaakaar ñoo ngi sant nag bu baax yàlla di yeesal sunu jaayante ak Cheikhuna Ahmadul Xadim di du feddali sunu kóllëre ak sunu taalibe ak sunu pas-pas ci moom di barkeelu ci guddi gu tàdd gi nga xam ne mooy kenn ci Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu di kilifaam di ab sëriñam di wasilaam di ab soppeem di xaritam di léppam di wax ne moom day Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul lépp lu mu am ci yàlla rek bark bi yonent bi ak darajaa ma ko ko may kon ñun lii lépp njaboot gi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ bi dañoo war and ngir feddali loolu nga xamni ni mom la sëriñ bi nekkon loolu nak mo ñu fi dajale won ñun ñëpp tay ñu dajé fi ci tangé ci daara ju mag gi nga xamni ni mom la sëriñ Cheikh Ajara Mbakke sosoon fi ci ci ci ci ci tangé tuddé ko muy daara jo xamné euh sëriñ bi moko sos ci ndigalam moko sos ci muy mbooloo moo xam dañoo àndoon ak moom nekk fii di liggéeyal yàlla ba mu jox leen ndigalul ñu taxawal gàmmu fii ci barab bii nga xam ne nii mooy Guet Ndar ren nag ñu ñëw fekke si ko ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi ànd ak sunuy rakk yëpp ak sunuy doom ak mbokki taalibe yi ak magi taalibe yi ak njabootu kër gépp ngir ñu jëmmal li nga xam ne moom la sëriñ bi waxoon ndax sëriñ bi moo woowoon jëwriñi daara jii ginnaaw ba ñu ko sosee ba nekk ci di liggéey mu xam ne mbooloo mu nekk fu ñu nekk rek dañ faa war a jaamu yàlla sant fa yàlla def fa li sëriñ bi bëggoon ak li sëriñ bi nekkoon ci la joxe woon ndigal nag mbokki taalibe yi ci njiitul sëriñ Ndongo Cissé ak ci Ismaïla Dramé ak sëriñ Koso Diop ak sëriñ amadu Diop ak sëriñ Maxtaar ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi yëpp duñu bari nag di góor ak ay jigéen bañ ko tàmbalee ak léegi xaw naa yàgg ndax man li may fàttaliku ci fekke ko mat na fukki at ak juróom-ñett wala lu ko ëpp sax waaye ñun ñëpp sëriñ bi moo ñu joxoon ndigal na bu bis bii ñëwatee nanu dajaloo fii fàttali ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd liggéeyal ci yàlla ànd liggéeyal ci Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul te taalibe bu nekk waru garam ci àdduna mooy jëfe ndigalul kilifaam loolee nag moom lañ ñëw di ko màggal moo tax keroog bam ñu ko waxee ba tey fu ñu bés bi fekk ci kaw suuf te amuñu benn ngant ñëw ànd ak taalibe yi yendu ak ñoom fanaan ak ñoom dénk leen lu baax ñaanal leen fatali lilan senu jaayante ak niñ wara topé yalla ak niñ wara top a bi to lol lepp moy wama ma ila rahmatan lil alamin yàlla waxoon yonent sallallahu alayhi wasallam rek xam ne yalla ak tawfeexam rek mom lañu sëriñ bi bëggal ah, mom la sallallahu alayhi wasallam andi wonit nit don ko jox julit ñi kon ñun ñepp suñu gar moy ñu teggu suñu tank ci lolé nga xamné mom la yonent bi da ta nekkon ci yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam julit bu nek war na ko bàyyi xel te xamne moy ki gënal sunu borom ci kaw suuf afdalu khalqillahi moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam te Sëriñ Tuubaa nañu ci mindam mu bare bare bari ab dayom wax nañu melokanam ba wax nañu sax akmalul wara xalxan wa xulxan daa di ak tek ci ne wal mislu xattu yura walun walan fi shiyami kon ku melni mom yalla ko yónni mooy ko xam ne mooy xaatimu nabiyiina na it kooku mooy imaamul mursaliina mooy kenn ki nga xam ne yàlla teg na ci kanam ñëpp ne ko yaay jiitu ci kanam ñëpp yaay kilifa ñëpp te it yaay ki nga xam ne yow laa mujjee yónni ci mbooleem askan wi ci mbooleem umma bi yëpp kon kooka bu del ganuk àddunaam dellu see jullit yëpp war nañoo feeñal seen mbégte ci moom ak seen pas-pas ci moom ak seenu yaakaar ci moom ak seenu bëgg ci moom ndax nun kat ki nu yaakaar dox sunu diggante ak moom mu Cheikh na Ahmadul Xadim dafa jaayoon njureelam jaay askanam jaay deratam jaay léppam ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ànd ak moom ci taxawu ko matal message bi nga xam ne moom la ko yàlla yónni woon moo tax léegi rek suñ borom daf ko yónni ci mbooleem jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi kon tey foo dem ci réew mi foo dem ci àdduna bi foo dem ci Afrique ñu ngi fàttaliku guddi gi te di ko màggal te di ko yeesal di ko dëgëral te di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñun nag jëfe rek moo nu ci war moo taxoon sëriñ bi waxoon ñu ne su bis bi jotee fépp fu ngeen nekk ci kaw suuf na ngeen dajaloo ànd bokk benn pas-pas bokk benn yéene bokk benn gis-gis bokk benn taxawaay jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci fàttaliku ko ci sellal ko ci dundal ko ci taxawoo ko ci rafetal ko mbooleem julit yep nak ak talibé yi nga xamné ñom dañ ko sékkalon seen taxaway rafet na ci lool seeni jëf rafet na ci lool seen ndigalit jëfé nañ ko ni nga xamné lañ ko sëriñ bi santé kon leen di ñaanal yalla defal leen ci lu kawé seen yaakar te nu gën gor golu rek té nak mbir mi ñu bayé ci xel bu baax te xamné euh, ki ko nu wara roy la ci jikko ak ci jëf ak ci melokaan te xam ne yàlla ci ñëpp lu ko yónni te kenn la koo xam ne ku ko roy doo juum ku topp ci ay ndenkaanam doo juum ku am amee melokaanam doo juum ndax suñ borom moo ko tagg ci alquran wax ñu ne wa innaka la ala ya muhammad waa azimin kon nag jëf ju màgg xol bu rafet jikko ju rafet mooy loo xam ne nii mooy li ëpp doole ginnaaw bi mu doonee ki mu doon ci pas-pas ak dëgër ak rafet euh, kon ñun ñëpp war nañoo maase rek ci gën a góor góorlu ci taxawu jéem a jël nag aw doxinam gën a fonk ay ndigalam gën a yeesal sunu pas-pas jëmale ci moom te di ko rafetal waxtu wu ne loolu mooy li sëriñ bi bëggoon ci nun kon nag buñ fi bàyyi te teyit nañ daa ji takkaat suñuy laxasaay gën a góor góorlu gën a taxaw gën a fas yéenee doxe ni nga xam ne ni noonu la Serigne Touba toppe woon ci moom ba am li mu am te xam ne euh, yàlla jeexalul dara ñun ñooy jeexal ndax maa indikum yanfadu maa indallaahi baaxin nañu xam ne yàlla ku jaar fi ñu baax ñu jiitu woon jaar rek ku fa jaar yàlla mën na laa dimbale ba defal la loo xam ne nii dana ko weesoo yaakaar àdduna ak kon nag yàlla na yàlla taas ci barkeb yonent bi sallallaahu alayhi ñu fekke ko at yu bari te gudd fan lool ba mën a continuer jëfe ndigal ni nga xam noonu la ñu ko sëriñ bi diglee te matale ko te gën koo rafetal bu baax a baax a baax noo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp te ndokkeel jullit yëpp fu ñu nekk ci réew mi te di leen baalu àq di leen baal di ñaan lépp lu luñ jëf ci guddi gi yàlla na ko yàlla gërëm yàlla nañ bokk ci jullit yi nga xam ne ni yàlla nangu na seenub liggéey liggéey bi yàlla na àgg fi borom bëggoon mu àgg fa te weesuwul jaamu yàlla rek dëggal ci yàlla dëggal ci sëriñ bi top yonent bi top ay ndigalam te fas yéene ko baña moy ba faw lolo rek mo nek yittey Serigne Touba lolo mo nek yittey mboolem njaboot gi mu fi bayyi ñun ñi ñu fi nak yi tey loolu rek moy suñu yitte. Eh, jërëjëf serigne Mortala batay ma ngi delu di la sante bu baax di sante groupe bi nga andalit ci waxtu wu nek yit yéen ngi jema dox ci tank yi nga xamne ne eh, ngir sensibiliser nit ñi ba ñu gën moytandiku lépp loo xam ne ni rek bokkul ak li taxoon ñu andi ñu ci àdduna réew mi day suñ boroom def na ne jamono yi ñu toll guddi yi ñu toll bari na ay tolof tolof lool waaye li koy saafara day ci sama xalaat man bokk na ci dellu ci yàlla rek nangu dogalub yàlla te wettili ko yàlla te bàyyee sunu bopp ak yàlla te góorgóorlu ndax ku nekk bu fekkee dangaa jàpp ne yaay may sa bopp ba tax nga yàkkamte sa àdduna jóg di doxe noo xam ne nii bokkul ak ni yàlla bëgge ab jullit doxe noonu rawatina ab taalibe ci yu mel nii rekk lay mujj nit ñi de dafa mel ne dañoo jàpp ne seen destin ci seen loxo la nekk te destin wu doomu aadama nekkul ci loxob doomu aadama ci loxo yàlla la nekk ndax bëgg alal di ci xëy guddeeg bëccëg taxut nga am ko ñàkk ko sàkku yi te dooloo yàlla téewut nga am ko waaye dafa mel ne ñëpp tey dañoo jóg rek defe ne suba suba suba dañoo war a doon ñu ñuy tudd ci alal te yàlla bindewul noonu àddunaam ñi fi jiitu woon day li leen musaloon moo nekkoon la Cheikh Mout Fadal daan wax rek Tep-tep mo gën rét xey xey rek bëgg doon ki nga doon jigut kenn loolu nag moo yóbbee musiba mi nga xam ne mi ngi dal ci réew mi di dal ci gone yi ñii di jël lu nu moomul ñii di dugg ci gaal yi ay centaine de personnes di ci ñàkk seen bakkan ci loo xam ne nii mënoon naa ñàkk bu fekkee suñ borom dogalu ko ndax dëgg la dogalub yàlla am na ci waaye sabab baa ngi fi sabab bi mooy nit ñi ci seen bopp ñoo amutut benn patience ci dara te defal nañ ne tey tey tey dañoo war a jekk nit daan na dund ba am ñeen fukki at juróom fukki at te du am sax néeg bu mu moomul boppam nee nag bu fekkee da ngaa bëgg judd rek amagoo ñaar fukki at bëgg nekk millionnaire wala bëgg boole sa bopp ci ñi yàlla mel noonu ama de mujj gu ñaaw rek moo fi moo moo fi nekk kon nag ñi ngi dénk ñëpp di leen bàyyiloo xel ne yàlla mooy joxe alal yàlla mooy joxe wërsëg wërsëg nekkut ci loxo nit ci loxo suñu borom rek la nekk kon ku ciy def jiitalal sa xel te bañ a topp sa xol ak sa bëgg-bëgg wala bañ a topp ñoo xam ne nii duñ ay royukaay ci yow nanu delloo suñu xel ci yàlla te góorgóorlu te li nu amakus néew ñu jàpp ko te fonk ko te xam ne wut yàgg na lool waaye am lu gaaw la bu ko yàlla mee ci yow kon nanu wattandiku bu baax xool fi ñuy teg suñuy tànk kuy bëgg dara it nga bëgg ko ci anam gu rafet anam gu leer anam gu yiw ba boo ko amee man ko jariñoo moo gën nga sàkk ko ci anam goo xam ne nii it bu ëllëgee doo ko jariñoo ba noppi bàyyi sa ginnaaw métit ak naqar woo xam ne nii ñi nga bàyyee moom la ñu continuer dund loolu dara jaru ko ci àdduna kon nag nañu dellu ci yàlla te xam ne rek ku am rek yàlla la jox bëgg liggéey taxut nga am liggéey bëgg alal taxut nga am alal bari xam-xam taxut nga am alal alal alali yàlla la inna allaha yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir loolu suñ boroom wax kon ku ko am rek yàlla moo la ko jox te it ku jaar fi nga war a jaar rek li li ciy sa wàll di ko am te doo loru doo lore kon nag yàlla nu yàlla musal ñun ñëpp ba lépp loo xam ne nii mooy li gën ci nun yàlla tànnal ñu ko te yàlla ñu yàlla may xolub nag man koo nangu te gëm ko te xam ko te nangoo topp ci yoon wi nga xam ne nii jullit bu ci mës a jaar wala gor gu ci mës a jaar rek yàlla dimbale na defal na la tawféex te loolu mooy rek li am solo jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah